duma ne sax mo fi dàq set mais amna na li nga xamantene mom la ko suñu borom may ba kumu setal da koy gis ñu koy wax soxna Abibatou gay euh, la grande voyante xamna naa rek damay daal di la bàyyi nga nuyu suñu mbok internet yi lay seetaan so ah, fay la bu baax macha allah Moussa ngi lay nuyu wa gazette People di len fay di len jox sen wàccuwaay macha machallah di nuyu sama ñaari waajur bu góor ak bu jigéen di nuyu sama borom kër di nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aaday macha allah di nuyu soppe fépp fo xam rek soppe soxna batou mo ngi fa bir rew ak bitim rew ma ngi nuyu ñëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah euh, macha allah soxna Aïbatou Gaye kàddu na solo bu baax a baax mm-hmm. tay nak mën na dama la sét ñu war a lu bari ñu war a actualité wala Ousmane Sonko avenir gis na ci ay mbir yu doy war wara aussi Adji Sarr

boo ma waxee sama révélation ci seet damay sant yàlla ndax toujours dama naan lépp lu nit am rek wala lépp lu nit mën rek mbiru yàlla la soxna Abi Batu macha allah toujours dama naan man dama nekk jàmbu toroxlu mmh. dama nekk nit ku simple mmh. dama nekk nit ku dul wane wu daal mmh. waaye maa ngi sant yàlla boo ma laajee ci seet tamit dama koy sawal toujours dama naan leen man seet tatonew ma Moussa man lu ma gën a bañ si nit di wax loo gëmul wala di def loo gëmul wala ñu tiimal la micro caméra rek ngay inventé wala ngay ratatatatati rek bu amul commencement amul fin man dama nekk macha allah une femme digne lépp lu may wax dama koy gëm lépp lu may def dama koy gëm seet dama ko mën macha allah man soxna Abibatu xam naa ne dama mën seet. xam naa ni macha allah seet yàlla daf ma ko baaxee. dama ci teg loxo. ma ciy def yu doy waar nag macha allah dafa guddawu ma. tatonew ma benn yoon. soxna Abibatu lépp lum la wax téere la. man duma la seetal naan ku gàtt ku xees keeg ku ñuul ki amoon na fi déedéet. dama lay wax réalité bi tax yow. Mhm. lu tax nga woo ma ma seetal la laa lay wax. Mhm. Mhm. incha allah problème daa lay résoudre. macha allah. yàlla daal li ma mën a wax alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin baaxee na ma moom seet. macha allah mm-hmm. macha allah soxna Awa Bada mais li gën a neex nag mooy dégg naa da ngay seet nit ko ba pare jox ko ay sarax sarax yoo xamante ne. da ciy gis ay résultats yu taw fii. Mm-hmm. dara déggoo ñu naan la man may la solution. soxna abi Batou macha allah yàlla man daf maa may sarax. Moussa nit boo doyloo. Mm-hmm. nga yem si yàlla lu lum la may. macha allah lépp li nga bëgg di ko am. man duma forcer dara. du ma def lu ma munul mhm. du ma wax lu ma munul parce que mhm. damay waalo waalax boobu bëgguma ko ma yab toujours dama naan soxna Abi Batu man du ma ñaan mhm. man sarax laa man te macha allah xam naa ne man damaa man sarax dama mën sarax ndax maa ngi ci lijjanti problème yu doy waar Moussa est xam nga ne jafe-jafe bu nit mënti am si àdduna loo mënti am boo ñëwee seeti soxna Abibatu bu ma la tettalee sarax bu ci yàlla àndee sa aajo day soju man amee soxna Abibatu soxlawul ngay ñaan ñaanlu hmm? bu ma la digalee samay sarax rek macha allah lépp li nga bëgg di ko am dama généraliser lépp kon sarax mën bépp problème. problème bu munti nit munti am ci àdduna sarax mën na ko def mën na ko fànq. bu dee lu baax la. Mhm. sarax mën na ko defar bu dee lu bon la timi sarax mhm. mën na ko fànq. toujours tamit dama naan leen moytu leen sarax yi. Mhm. dañu ne wax waxaat du bari wax. dama bëgg ñi nga xam ne ñu ngi door a gis soxna Abibatou. ñu prêter attention ci li may wax. dama bëgg ñi nga xam ne macha allah ay yàgg nañu xam soxna Abibatou ñuy bàyyi xel toujours ci li may wax parce que toujours damay répéter. moytu leen sarax yi. man porteur de voix laa man macha allah nit ñi dañ ma bëgg dañ ma bàyyi xel dañ ma jox bopp moo tax toujours bu ma leen bu ma kiiwee bu ma nekkee buñ ma wanee war naa mën a wax lu leen di avancé war naa mën a wax loo xam ne buñ ko defee dinañ ci gis njëriñ moytu leen sarax moytu leen n'importe quel sarax ñu leen di diggal ay sarax rek ngeen di def ndax nu muy defaree noonu la yàqee hmm? mhm. nu muy defaree noonu la yàqee ndax toujours dama naan sarax dafa am bës hmm. sarax dafa am heure mhm. sarax dafa am melo mhm. sarax dafa war a xam nit ki yow rawxaanam lan la bëgg mais gis nit ki rek digal ko ay sarax yu kenn xamul mu mën ko yàqal avenir am hmm. da ngay ree ba tas nañ moytu si am na solo doy na waar mhm. macha allah euh, macha allah soxna Abibatu Gaye kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax nee naa la soxna Abibatu Gaye nag mën naa ne lépp loo ko du ko def mom nak nekul koo xamante ne day wax naan mën naa lii mën munuko, lee si net bi alors que mënu ko ñaan ñaan mais sarax soxla bi nga xamante ne yitteel na doomu aadama bu la ko defaralee si sarax incha allah say aajo dina faju ñu jàll suñu beneen question mën naa ne moodu moodu yeeg faatu faatu yi say xarit lañ ñooñu mën naa ne dañ la bëgg trop des fois dañ ma yónnee question yoo xamante ne muy wàllum papier ñi nga xamante ne dañoo nekk foofu bëgg ñibbisi bëgg ay sarax boo xamante ne day tax seen papier gaaw waa alhamdulilah Modou Modou yeeg Fatou Fatou yàlla dañ ma daf ma boole ak ñoom toujours dama naan man niñ ma def sax damay dem ba mujjee ruus waaye sant yàlla toujours dama naan peut-être li ma leen def moo tax ñu delloo ma ko man immigré yi partout dans le monde diaspora bi samay xarit lañu samay soppe lañu est-ce que xam nga ne nee naa diaspora bi dañ ma tuddee ay doom bokkontaan kontaan parce que sëñ Babacar Si lu ma gëmul duma ko wax man du ma wax lu ma gëmul façon teraanga bu nekk waa desporaa defal nañ ma ko dara nag su dulul wóolute dara su dulul am yërmande man soxna batu yaay Fall laa du ma tiital nit du ma wax nit lu ma munul du ma wax nit loo xam ne peut-être bu ma sekkee yow damay ruus yàlla rek moo mën nag waaye macha allah diaspora bi si kaw si kanam. Mm-hmm. bëgg naa leen bëgg na ma yàlla nañu yàlla dafal cat. Mm-hmm. te sama yéene si ñoom yàlla na ko yàlla mottali. Moussa da nga gis koo xam ne dafa toog ay dix ans amul kayit. Mm-hmm. nga gis koo xam ne ut na avocat. découragé na dem na fu ne. mais boo seet see soxna Abibato bu ma la digalee sarax. lépp loo bëgg ci kayit incha allah di ko am. Hmm? loolu man maa leen ko garanti. incha allah. di sarax rek. ni nga xamante dañoo bëgg am doom nag. Mm-hmm. waa muy lépp rek. Mm-hmm, nee naa la lépp loo xam ne macha allah yàlla da koy dogal. Mm-hmm. bu ma la seetalee ba xool ne yow mi yàlla dogal na si yow doom. incha allahu rabbi bu ma la joxee sarax di nga jël ëmb. bu ma la joxee sarax di nga jël ëmb loolu am naa ci ay retour bu dul jeex mm-hmm. bu dul benn butul ñaar ñii dañuy toog ay année amuñu doom ñii jooy fu ne mm-hmm. ñii def lu ne mm-hmm. macha allah mais ñi ngay gis ñoo xam ne sa tubaab bi daf leen naan ñii mënuñu am doom mais bu ñu seet seet soxna Abibatu macha allah bu ma leen digalee sarax bu àndalek yàlla rek ndogalu yàlla rek bu soob yàlla da nga jël ëmb <laughs> sant yàlla Mhm. mashallah allah macha Batu, soxna un kaddu solo bu baax a baax a un peu euh, waxtu la mais comme que porte de voix la euh, xam euh, sénégalais dañ lay déglu bu a si point yi nga actualité moy Ousmane Sonko avenir Ousmane parce que jamono yenn sa Ousmane Sonko dina président 2024 ji soxna Abibatou président Ousmane Sonko loo ko mën a ñaaxee. waaw man toujours dama naan soxna Abibatou man je suis apolitique. Mm-hmm. man duma wax ci état. Mm-hmm. duma wax ci opposition. ndax macha allah li ma doon ci réew mi tëddee njaaxaanaay moom moo ma war aw ma droit faral kenn mais lu ma leen di ñaax jàmm lu ma leen di ñaax salaam lu ma leen di ñaax lu yàlla bind ci rëdd ci jëw doomu aadama ala kulli al day am toujours dama naan bu sonkoo naree nekk président mbindeef mënu ci dara day metti rek min def mënu ci dara bu yàlla dogalee tamit ne Macky Sall moo war a toogaat tamit min def mënu ci dara kon nañ rafetoo nañ bokk ndey nañ bokk baay senegal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay jarul xuloo jarul ŋaayoo ndax ñoo bokk gaal gi te maara day gaal gi maara day taali bu gaal gi daanoo maara day taali sama mbokk ngi sa mbokk ngi si mbokk Sonko ngi si mbokk Macky Sall ngi si mbokk ñëpp a ngi si kon nañ rafetoo daal macha allah nañ rafetoo macha allah man daal loolu daal laay wax te ñi si génn àdduna macha allah ndeysaan suñu doom yi yàlla na leen yàlla xare àjjana suñu frère yéeg ñëpp ñu si gaañu métti na métti na ndeysaan koo xam ne yow yaa nekkoon sa sa yaakaaru waajur nga génn àdduna si anam bi metti na ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mais ñu ngi leen di jaale te ay bi yàlla na fi yem ci barke Seydina Mouhamed yàlla na fi ay bi yem Sénégal jàmm la ñu xam Sénégal happy kafoo reetaan la ñu xam mm. ah Sénégal di dëkk dëkku jàmm la mm. mais nañ nañ rafetoo rek te defaraat xol yi mm. waaw nañu rafetaan xol yi bu ñu defaraatee xol yi rek yàlla dina def sutura. macha allah mm-hmm. euh, macha allah soxna Abibatou Gueye kàddu gi am na solo bu baax a baax baax ñu jàll suñu beneen question nag muy euh, dégg naa Adji Sarr daa bëgg def benn appel nga gis ne appel boobu ko def est-ce que Ousmane Sonko ko gën daanaat daan bu gën a wala est-ce que man moom wax dëgg yàlla loolu lépp lu ma ci wax damay fen mm. ne naa na man ay affaire politique daal du ma ci wax waaye Adji Sarr daal man dama ko jox conseil diggante mag ak rakk yaay ak doom bu doon sama sago daal mu génn si yi man daal dama koy jox conseil rek laa koy jox macha allah lu ma lay wax rek nee naa la moog Sonko man xaw ma ci dara xaw ma li affaire bi demee parce que bu ma taxawee ne affaire bi demee damay doon naa fekk mais na génn si daal jigéen la te pare na pour am njaboot pare na pour am jëkkër pare na pour kii daal na génn si yii man bu doon ma damay génn si yi nekk si leneen moo gën daal loolu jàmm jàmm ko gën kon lu dul jàmm jàmm ko gën ñoom ñaar ñoom ñëpp yaa na yàlla defal jàmm. amiin macha allah barke yonent yi macha allah euh, macha allah soxna Abibata Gaye euh, gi am na solo bu baax a baax a baax ñu jàll nag mën naa fan yii nag am na benn coow boo xamante ne si làmb ji nag si lutteurs yi. Mm-hmm. ay ñoom Balla Gaye ay ñoom Modou Lo mbër yu mag yi daal ñu naan mbëru VIP yi mm-hmm. ak ñi nga xamante ne mooy ñoom Xarim Ndiaye ñi ngi sànnante ay pic naan ay lan moo tax même sénégalais sax ne ne dañoo bëgg boycotter làmb euh, bu làmb amee kenn du demati na nga gisee mbër yi mm-hmm. seen taxawaay si mi ah lolu moy lima la wax rek man soxna abi batu man yu bari duma ko nangoo wax dal luma ci meuna wax ñun ñepp ño far ño kugis senegal ño bokku nday ño bokku bay ku gis ku gis deug rek boo mënee wax ta yalla tax wax ta yalla tax ku mënul wax ta yalla tax timi noppil man dal jamono bi loolu la tok tok xol tok si so ruk bul wax ñu la yobbo buñ la wax luñ la xébé buñ wax lo xamne dañ la ci fayda man do la xam boo mënee wax dëgg te yàlla tax nga wax dëgg te yàlla tax boo mënul wax doo mënul wax timit loo xam nga noppi mais ay man ay mbërëg ay yëpp man ñëpp laa si boole yem man soxna Abibatu sama bopp moo ma ñor ak li ma dimbalee jaamu yàlla daal parce que Sénégal dafa toll foo xam ne dañoo soxla ku leen dimbali Sénégal dafa tollootuñu ci ay ay yaamane maale joxe ma joxe leen. Mm-hmm. lu dëgg suñu doom yi dee dafa metti daal. dafa metti Sénégal bi tàkk dafa metti mm-hmm. loolu loolu loolu daal la ñuy ñaan yàlla yàlla seral ko mais pas ay fitna. Mm-hmm. pas ay fitna daal li ma lay waxaat Sonko maa ngi koy ñaanal. xale la. xale la macha allah mën na am lu nekk ci politique. mën na am lu nekk ci politique bu gënee yàlla na ko borom bi def ci barke Seydina Mohamed lépp lu gum ci moom yàlla na ko yàlla def ndax gis naa ni xale yi bëgg nañ ko laal mm. xale yi bëgg nañ ko xale yi fonk nañ ko loolu yàlla la kenn mënu si dara mm. lu yàlla namm ci nit kenn mënu ci dara président Macky tamit macha allah mm. nitub réew la yàllaa ko ko teg nañ nangu rek li yàlla def tamit yàlla na yenam oyof ci barke yonent bi lépp lu yàlla namu ci moom yàlla na ko yàlla def. ci barke yonent bi. macha allah mhm. euh, macha allah soxna Aïbatou Gueye gi am na solo bu baax a baax a baax daanaka nag émission bi jeex na waxtaan bi neex na trop nag mais nag xam naa dañu def lu nag bàyyi la nga tàggoog mbokk yi doon saraat nga lancé tamit mhm. message. si si jeunes yi ak ñi nga xamante ne moom ngay ñaanal. Mhm. waa alhamdulilahi rabbil alamin émission bi dugg nañ ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ci bis dugg bismillahi rahmaani rahim ñu ngi ciy génn ci alhamdulilah toujours dama naan la jeunesse mooy espoir u dëkk jeunesse mooy lépp man dama bëgg jeunesse bi man dama fonk jeunesse parce que macha allah jeunesse mooy avenir réew kon nañ jàppale jeunes jeunesse bi nañ pas suñu jeunesse bi nañ dimbali jeunesse bi parce que jeunesse moi espoir nañ dimbali suñu jeunesse toujours même sama émission pas jeunesse parce que nous am jeunesse rêve dimbali dimbali dimbali entourage kon maa ngi ñaan ñu jàppaleel ma jeunesse bi jàppale xale yi macha allah te xale tamit lépp lu ñu bëgg yàlla na ko yàlla def daal yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla dooleel daal mm, euh, kii avenir kii. dëkk jeunesse la espoiru dëkk jeunesse la dëkk bu jeunesse ànd ak yow yàlla si def jàmm dëkk bu jeunesse mere du baax kon nañ jàppale jeunesse bi di ñaanal Macky Sall di ñaanal Ousmane Sonko ñoom ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm yal na leen defal sutura Sénégal yal na fi jàmm amaat ci barke Seydina Mohamed ñun loolu la ñu xam ñun dëkk jàmm lañu dëkk salaam nañu loolu lañu xam képp dëkk dëkk dëkk boo xam ne tamit bëgguñu injustice sénégalais bëgguñu injustice mm-hmm. waaye maa ngi ñaanal ñëpp yàlla na yàlla def jàmm def salaam ci barke bi